ci seen édition spéciale bi leen télévision Futurs Médias indil ci euh, événement bu spécial li waral mu spécial mbokk yi xam ngeen ko euh, lu ne kenn du ko jeex te weddi gis bokk ci li ngeen gis ci ay image mooy li xew tey euh, ci zawiya Sidaaj Malick Sy fa nga xam ni ci àjjuma ji xadra la ñu xamee mbokku tijaan yi ci la leen fa fekk ak ay grenades lacrymogènes sànni leen ko ba ci biir euh, jàkka ji loolu nag euh, mooy li xew euh, moom moo waral édition spéciale bi dinañ ci ànd ak suñu mbokk taskatu xibaar yi ñu ci àndal ku mel ni Cheikh Yirim Seck directeur de l'information ba ak yeneen autorité politique ak yeneen observateur yu nekk itam ci téléphone bi dinañu jéem a jokkoo ak ñoom waxtaan ak yéen ci événement tey bi ci noonu dañuy ñëw njëkk ci gan gi Cheikh Yirim d'abord ndax jàppaloo ni élection yi nekk na ci jafe-jafe bu fekkente ni soldats yi suba la ñu war a commencer te marche bi bu ñu sukkandikoo ci kàddu Ibrahima Fall Cheikh Bamba Dièye dañ koy dabliwaat suba ñii nga xam ne ñooy takk der yi war nañu ñëwaat taxaw est-ce que jàppaloo ni élection yi nekk na ci euh, ëllëg bu bët setagul maanaam lendemain yu incertain. non a tal mooy parce que image bi ñu gis a tuuti yi yu que euh, man sa micro dafa dafa dañ Cheikh s'il vous plaît ah, en attendant ñu jël ko euh, ma ñëw ak euh, Barka même question bi rek laa lay posé euh, muy lan mooy ëllëgu élection yi ñuy dëgmal 26 février waaw defe naa Pape balaa ñuy tontu ci laaj boobu dañuy commenter d'abord image yi ñu gis mhm. ñu ngi ko doon wax sànq ci kàllaam nasaraan mooy bi may wax naan réew war nañoo moytu ñu banaliser violence mhm. te loolu lañu ñu assisté mooy euh, dañu jël euh, commencé soofantal lu xew ci dëkk bi mu ngi commencé ci lu gën a garaaw lu ñu soofantal mooy ay ñu ñàkk seen bakkan soo jëlee rek exemple lu xewoon ci place de l'obélisque ba ku mel ni Mamadou Diop ñàkk ci bakkanam nga xool nan la ko autorités yi traité nga xam ne déjà atteindre nañ benn niveau bu doy waar parce que ku ñu ne camion jaar na sa kaw lu mel ni camion police ñëpp xam nañ ne dans le cadre du maintien de l'ordre lu tudd bavure mën na am mën na nekk bavure mën na nekk euh, un acte délibéré mais toujours est-il que yooyu su amee dans un pays normal euh, fonctionnaire de police yu nekkoon sur le terrain dañ leen di saytu dañ leen di woo dañ leen di entendre walla sax ñu suspendre leen ça ne veut pas dire que dañ leen tuumaal mais dinañ xool ba liñ leen di accuser lan la dinañ woon xool ndax camion bi waroon na euh, ci ban sens la waa ji jëlee kan moo ko jox ordre mu foncer sur la foule est-ce que loolu la loolu la voilà mais euh, dinañ ci def ay enquête c'était c'était un minimum même su ci bakkan rotul woon sax camion bu dem ci ci ci maintien de l'ordre dañu waroon téye oto bi ci benn place dañu waroon enquête ñu daal di xool déjà camion nan la mu ne dans le cadre euh, di maintien de l'ordre foncé ci foule bu nekk parce que camion boobu keroog euh, pour ñu nekkoon foofu ñëpp mais carnage la naroon def xëñ na yàlla na ko yàlla yërëm moom du jóg moom la ci bakkanam rot mais de centaines de personnes mënoon nañ ci dee parce que xam nañ ne camion doo leen xajul foofu loolu mooy lu njëkk loo xam ne dafa dafa jeng le ministre de l'intérieur mooy ko xam ne tey Cheikh Yérim Seck Pape Ngagne njaay man mii di wax ak keneen ak keneen ñun ñëpp moom moo ñu fi nekkal pour yore suñu kaaraange donte am na fu mu féete politiquement moom mooy le premier responsable mooy nu koy tubaab di waxee c'est le premier policier du du du pays ce qui veut dire que su fekkee ay euh, policiers ñu ngi ci ci mbedd bi war a def seen liggéey maintien de l'ordre nekkal lu ñu fi Abdoulaye Wade nekkal lu ñu fi opposition dañu war a def seen seen seen liggéey mais moom ci boppam dégg nañ lu mu wax avant enquête procureur classé na dossier Mamadou Diop parce que nee na Mamadou Diop euh, ci comme point de presse bu mu wax démb. nee na accident de circulation. loolu su fekkee gis nañ ko te am na yeneen précédent lu ñu parce que euh, il faut qu'on s'arrête sur ça avant ñu egg léegi léegi lii ci affaire lu xew tey tey muy lu doy waar policier bu jël grenade di ko sànni ci biir zawiya il faut rappeler que def nañ ko ci église. ci film politique cathédrale Jean-Paul Diaz ay policiers dikk dem nañ fekk ko dans un lieu de culte ñu daal di ko jàpp te loolu aussi il faut il faut ñu dénoncer ko commencé wul commencé wul ci zawiya bi ce qui veut dire que dañu dañu banaliser lu bëri maintenant pourquoi man ma ragal affaire boobu noonu ñiy nekkoon ci zawiya bi xëñ na ñoom seen yoon nekkul ci politique bi dañu nekk di def seen seen xadara nit ñi dàq leen euh, je veux dire manifestation yi daal di dem ba nit ñi di leen jël grenade di leen ko sànni loolu tooñ la tooñ la parce que ñoom nekkuñu woon ci mbedd bi ñëpp gis nañ ne seen biir zawiya lañ nekkoon te lu tax mu graw mooy su conflit jëlee une dimension religieuse parce que day soulever ay passion yàlla nañ ci yàlla musal même ci biir policier yooyu xëñ na moom sànni na grenade bi ci ci zawiya bi mais ñu mu àndaloon du du ñàkk am na ñoo xam ne tijaan lañ wala ñenn ñu murid lañ wala ñenn ñu catholique lañ wala ah, bref c'est des c'est des croyants su conflit politique euh, dimension religieuse daal di greffé woo ci un conflit politique on a un cocktail extraordinaire boo xam ne kenn xamul fitna ba fu muy fu muy fu muy yem lii acte bu ñaaw la boo xam ne baaxul ci réew baaxul ci image réew mi te nu mu gën a gaawee lii war nañ ko sanctionné parce que lii loolu moom sinon li muy jur ci réew mi kenn xamul fu muy yegg d'accord euh, Cheikh xam na foo tolloon waaw man ma doon wax mooy euh, act bi doon na acte boo xam ne am na yu ko gën a mooy grave fuuf yu taalum réew ñu seen xam-xam màcc ci histoire yépp xam nañ xeex yi gën a yàgg ci àdduna bi xeex yi déere ay téeméeri at yépp xeexu diine la ak gëm-gëm xam nga xeex bu yamee ci politique rek garaawul mais xeex bu xasee ba jaar ci wàllu diine rek kenn mënatul xam fu mu yem te ki def lii euh, buñ ko def tegul sanction bu exemplaire ci Sénégal ba ñëpp teg seen bët dañu xam ñëpp xam ni réew mi mu ngi ci danger parce que xam nga lu tax mais du kii ci ay ordre la agir ay ordre moo tax mu def lii xam moo tax lii garaaw mhm. même boo jàngul war nga xam ni même ci droit international guerre bu amee lieu de culte yi maanaam fépp fu ñi di diine di kii droit international daf ko protéger mi ngi noog garab yi mu ngi noog xale yi mi ngi noog jigéen ñi mi ngi noog ñi nga xam ne xeexuñu droit international daf neen a protéger maanaam xoolal même tubaab yi nga xam ne gëmuñu lislaam sans papier yi France bi ñu leen leen expulsé bi ñu duggee ci église Saint-Bernard la leen bàyyi parce que lieu de culte même ci l'islam ci l'islam sax bu ñuy topp nit dara jël ko nar ko toog mbugal yonent bi daf ni bu xasee ba dugg ci jàkk nañ ko bàyyi ba mu génn da nga wax bi donc yi c'est des lieux yoo xam ne ci droit international dañ leen a protéger fi mu toll ki def lii li mu def nii c'est un crime international parce que nit ñi li gën a sori ci ñoom mooy li ñu gëm li ñu gëm waroo ko laal acte bi man maa ngi interpeller directement le président de la république ak le ministre de l'intérieur parce que bu ñu bëggee bu ñu bañee coow wala fitna am ci réew mi acte bu mel nii il faut ñu sanctionner ko ak fermeté bu bu boo xam ne mosuñu koo gis parce que euh, euh, Pape xam nga lii lépp li ko waral mooy ñàkk formation policiers yi parce que policiers yi xamuñ sax ni ci démocratie nit ki boo ko bu dawee maanaam parce que loolu loi moo ko def nit ki bu dawee rek waratoo ko topp amul benn koo xam ne parce que ki policier ki muy jànkonteel wala mu koy jaay doole mooy ki jëm si ci moom mais mais ci maintien de l'ordre nit ki boo ko toppee ba mu daw tubaab def ni amatul capacité de nuisance maanaam mënatul yàq dara da nga koy bàyyi mu d'accord Euh, yéen ñaar ñëpp d'ailleurs kenn tontuwuma ci ci ëllëgu élection yi mais dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw si vous plaît euh, damay jël Dissa Préra suñu correspondant la bu nekk ci euh, terrain bi Dissa bu fekkee yaa ngi ñuy dégg Dissa Préra. waaw Pape Ngagne fi mu toll nii ñu ngi mhm. depuis depuis avenue Blaise Diagne bi yëpp laa la mën wax nag vraiment amul fenn fu ñu bàyyi fu nga xam ne manifestants yi nekk ñu di jàmmarloo ak takk der yi dem na sax ba nga xam ne waa. waa DIP itam dañu amatuñu munition dañu dem uti ay munition ñëwaat ngir mën a jàmmarloowaat ak manifestant yi. li ñu ñu mën a wax daal mooy fu fu ñu taxaw rek fu ñu taxaw tiré tiré tiré rek ah, manifestant yi dañuy daw changer place di waat feneen mais rond point rond point rond point ba ba ba marché ba marché ci leen amul fenn fenn fu nga xam ne doo ko romb ci doo gis ay pôles ñuy taal ay xeer ñuy sànni. am na benn moment sax ba nga xam ne ne que vraiment manifestant yi dañoo dañoo dañoo Euh, policiers yi waaye fi mu toll nii dafa mel ni policiers yi jëlaat nañu tuuti doole jëlaat nañu tuuti doole ba nga xam ne fi mu toll nii ñu ngi repoussé euh, manifestants yi mais daal fi mu toll mbir mi tàng na lool lool lool lool lool fam ngañ mhm. li ñu mën ci wax daal mooy euh, vraiment affaire bi xaw ma kañ lay jeex vraiment parce que ñu ngi wax ne si waa si kàpp jël nañu ñu ñuy wax fi mu toll nii tamit naa biir Medina bi yeneen yeneen ko ñu ci biir Medina jël nañu tamit li ñu wax daal mooy vraiment Pape mbir euh, mi tàng na lool lool lool. voilà euh, Dissa Pera euh, merci beaucoup dinañu dellu si waat ak yow ñu wéy ak plateau bi suñu natango yi fi nekk wax naa ko léegi man ëllëgu élection yi la bëgg ñu waxtaane ko parce que bu fekkente ni militaires yi ak paramilitaires yi ëllëgu samedi bi ak diweer bi ci lañu ñu war a dem ci ay élection lii xew ndax du du du du compromettre élection yi ci seen ëllëg. loolu tontu ci euh, du yomb parce que tout dépendra de la situation sur le sur le terrain mais xam nañ ne moom depuis bu ñu commencé ñun euh, gëstu ci ay affaire élection mosuñoo gis ay élection yu passé wu dans dans un climat pareil loolu mosu mosu mosaguñ ko gis parce que euh, dafa mel ni Sénégal dafa nekk ci lu ñuy wax état de siège état de siège lan moo koy wane mooy foo tourné nga daal di gis ay ay ay ay policiers foo tourné nga gis ay ay ay ay ay takk der plus violence bu ñu gis ay cortège yu ñu sànni ay xeer ay problème mu gis nañ lan la lan moo lay njëkk a frappé soo sooy sooy euh, nekkee journaliste ngay reporter ay image wala euh, ngay diriger une rédaction mooy phénomène u euh, garde corps yi on n'a jamais vu autant de garde du corps ay ay ay ay ay ay ay ñuy ñuy aar set bakkan ci ci manifestation yu ci élection yi nii mosuñu mosuñu ko gis loolu indice la pour wane na egg nañ ci benn niveau de violence beneen bu ñu wane woon ci niveau de violence bu ñu gis mooy phénomène nervi gis nañ Sicap mairie Sicap du jamais vu dans l'histoire euh, politique contemporaine ci dëkk bi ay fetalante en direct à la télé comme si c'était dans un Far West loolu yëpp euh, pap ay indicateurs yu luur la pour dëkk boo xam ne dëkk boo xam ne def nga alternance bu exemplaire en 2000 loolu loolu loolu moo doy waar paradox boobu ñuy dund cest à dañoo dellu ginnaaw benn façon dellu ginnaaw boo xam ne c'est extraordinaire. voilà dinaa dinaa dellu si euh, Cheikh nga bàyyi ma ma jël njiitu fekkee ma ci boole Youssou Ndour euh, mi ngi ci téléphone bi bu ko defee Cheikh ñu wax ci ëllëgu élection yi ñu dégmal euh, monsieur Ndour ñu ngi lay nuyu maa maa lay fay papa bi. Euh, Youssou ban commentaire nga mën a def tey ci événement bi ndax ñu bari jàpp nañ ni jéggi na dayo biñ ci raxee nag euh, zawiya bu mel ni zawiya Seydi Hadji Malick euh, ci àjjuma ji yema woon ak xadra ban commentaire nga mën a def ci wàll boobu en particulier bien avant ñuy ñëw ci généralité s'il vous plaît waaw jërëjëf Papa Ngagne d'abord maa ngi profiter ci occasion bi pour di jaale sunu mag sunu xarit di Moustapha Niass di candidat te bërki démb ay ndaw ci cortège am daanu ba loolu euh, jël ci ay bakkan ñu ngi koy jaale di jaale mbokkam di ko encouragé bu ñu jógee ci loolu ma ñaawlu comme ni ko sénégalais yépp ñaawloo li nga xam ni tey moo xew ci zawiya sidage Hadji Malick foog naa ni nag yàgg nañoo wax di expliquer pour wane ne que yoon rek moo tax a jóg waaye tey laal nañu xol laal nañu xol yi laal nañu euh, bërëb yi nga xam ne ci la ñuy yàlla laal nañu sénégalais yépp rawatina tijaan yi may ñaan dal toujours di ko ñaan parce que dal ci la lépp ànd waaye Abdoulaye Wade war na delloo ci xelam mu delloo ci xelam xam ne ne que ñi ko wër liñ koy wax du dëgg sénégalais yi nanguwuñu sénégalais yi nanguwuñu ni mu defee conseil constitutionnel bi sénégalais yi nanguwuñu nii valider candidature am sénégalais yi nanguwuñu wan nañ ko ko wax nañ ko ko waaye waaye constitution boo xamee ni que wax na ne que nit ñi am nañu droit manifester dañ koy yëgale rek ñu jóg ñu ne code électoral ñu nekk ci biir campagne électorale nit ñi nga xam ne que candidat yu ñu valider lañu amuñu droit def manifestation je pense que ni foo loolu nag lu ëpp tuuru te fi mu ne nii nit ñi am nañu problème parce que leader yi mënatuñu téye seen ay militants te problème bi du problème mu leader yi problème mu sénégalais yépp la donc may ñaan vraiment mu delloo ci xelam xool ne mu fàtte boppam xool Sénégal xam ne aussi am na yu mu fi réussir ndax way wi dina fi des vraiment ñi mu àndal mu wax leen dëgg nekkuñu ci dëgg nekkuñu ci yoon parce que problème bi mu ngi ëpp image yu Sénégal léegi laa déglu euh, Cheikh Yérim Seck mu wax ko te bu ko waxee xam na ko image yu Sénégal yàqu na mois j'en suis désolé te lii pour ñu yëkkatiwaat ko dafa metti wax na ko léegi nee na Sénégal mi ngi mel ni Libéria te c'est la vérité lii mësuñu ko xam donc nañu arrêté affaire bi nguur jarul lii Abdoulaye waat encore une fois dello si sa xel way wi nga war a am mën nga ko ab ba tey Sénégal moo ëpp importance képp kuy dox donc nag maa ngi ñaawlu lii di wax ne ko aussi sunu mbokk yi nga xam ni que ñoom ñoo yore armée bi yore gendarmerie yore police ñoom ñoo mës a nekk sunu fierté gendre euh, armée Sénégal ak gendarmerie ak police ñoo mës a nekk sunu fierté bañ leen di woo ci bitim réew ñuy dem ci foyer yi nga xam ne dafa tàng ñu fay def jàmm. suñu continuer nii nit ñi dootuñu leen woo fenn parce que duñu leen wóolu ku mënul nekk sa kër mënoo fa def jàmm kenn du la woo ci kër jàmbur pour nga régler ko mm-hmm. maa ngi koy ñaawlu te di leen wax ne que ñoom citoyens yi dañ leen protéger parce que amul kenn ku leen di war a jox ndigal na leen wax tiire leen ci population yi te ba ba ñu jógee ba léegi M23 man bi ma ci yegsee yàggut mais mësuma dégg mësuma gis ñuy doxal doxal boo xam ne ànd ak violence wax nañu ba léeg-léeg sax dañuy jiiñ naan dañoo ragal wala loolu mais ay nitu jàmm lañu ay nitu ex euh, kii expérience lañu ay nit yu xam exactement nan la ñuy doxalee ci réew donc naa ngi ni ñaawlu situation bi di wax ne que ñoom ñi yore sécurité bi te ñun dëgg rek la ñuy wut nañu doxal dëgg dëgg moo war am ci réew mi loolu ku yaakaar ne réew mi dina continuer comme ni mu meloon dangay nax sa bopp le Sénégal c'est un nouveau Sénégal il faut ñu jël ko noonu pour mën koo régler pour mën koo protéger pour mën Sénégal mën a jëm ci kanam retrouver très rapidement suñu image bi nga xam ne ñun ñoo doon vitrine démocratie fii ci Afrique mais perte nañ ko ah. et j'en suis très désolé. voilà Youssou euh, donc lan moo nekk ëllëgu combat bi pour yow lan la fii ñu nekk nii lan nga jàpp ni mooy ëllëg bi yaa ngi ci biir M23 naam euh, mënuloo ci wax ci tur boobu waaye ci sa xalaat lan moo war a nekk ëllëgu combat bi. mais man ëllëgu combat bi combat bi fi mu ne nii dafa ëpp dayoo kenn mënatu ko ar euh, euh, àtte lenn moom mooy combat bi moom mi nga xamee ni que bokkul ci élection yi waru cee bokk mu jël ay ay ay ay juge am nommé leen toppatoo leen ñu def li nga xam ne que loolu àndul ak suñu constitution moom kay moom moo ci war a tirer les les ba pare yore armée bi yore police bi yore gendarmerie bi jël ministre de l' intérieur boo xamee ni que vraiment je pense que ni Ousmane Ngom war na xoolaat boppam ñuy jël décision yi moom moo moom moo war a xool exactement fan la combat bi lii mën nañ ci ànd dem ci élection dans une semaine ce n' est pas possible il faut pas rêver. voilà nguur jaru ko. voilà. Euh, Youssou ñu ngi lay gërëm di la sant dinañu dellu si waat jombul ak yow euh, ci kanam bu soobee yàlla ndax édition spéciale bi dafay wéy euh, ñu daal di wéy ci plateau bi yaa ngi doon wax léegi Cheikh Yérim lu jëm ci ëllëgu élection yi ni ma la ko laajee naka nga ko gisee bu fekkente ni élection militaire yi ak paramilitaire yi demee sooxe na ëllëg. dëgg la man li ma jàpp mooy bala nga naan naam ne fa élection buñ koy def pour tànn ki jiite réew mi la. bu réew mi amatul élection amatul benn sens li ma jàpp mooy fi mu toll nii Sénégalais yi war nañ tel leneen lu dul waxi élection man sama gis-gis te loolu juróom benn weer a ngi nii ma koy wax te du tey laay soppi li sama gis-gis sama gis-gis mooy affaire candidature Wade problème politique la problème politique nag bu amee dialogue politique rek moo ko mën a régle waaw parce que nag ñaari façon rek moo mën a régler problème ci àdduna maanaam nga réglé ko ci wax ak tey ak njekk ak war wala nga réglé ko ci doole ak xeex ak fitna doole ak xeex ak fitna nag moom réew mu mu am parce que ba léegi sax Sénégal gisaguñu lan mooy fitna mais yàlla nañu yàlla musal bañ bañ a dugg ci fitna parce que fitna fu mu am maanaam loolu sax yàlla bu ko kenn gànda yàlla mu egsi mais fi mu toll nii li ñu war a def mooy ñépp ñi nga xam ne ñoo seq géopolitique gi ñëpp ñi nga xam ne ñëw bokk ci société civile bi ñu trouver benn arbitrage parce que am na ñu ci doon jox fan yi am na ñoo xam ne ñu ciy dox am na ñu ciy dox échoué na am na ñeneen ñoo xam ne ci biir Sénégal ñu ngi dox ci loolu. bu ko defee ñi seq réew mi yëpp toog ay larbitrage arbitrage de l' wala man sax mën nañoo boole église bi ak ñi nga xam ne ay kilifa diine yi euh, euh, jullit lañu ñu toog waxtaan dàq élection yi. bu ñu dàqee élection yi ñu xoolaat processus bi man li ma jàpp mooy Ablaye Wade képp ku ko jox bunt bu mën a jaar ba génn dina ko jël xam nga lu tax hmm. euh, xam nga li ma xam ci moom as néew wan na ma ni euh, nit kuy xool li àdduna bi di xalaat ci moom la wóor na ma ne lii image yi nii mu gis ci Sénégal neexu ko parce que euh, xolam rey na te bëgg na defar léegi nag li mu defaroon yépp mu ngi yàqu te loolu amul dara ci àdduna lu ko war a jaral loolu ñi nga xam ne ñoo ko war di ko xamb ak di ko naan ko waaw góor gi ñiy tekk yu dara di ko kii di ko kii yooyu paa bi dafa war a xam ni moom mi jàng droit xam na ni réew kenn du ko jël jaarale ko foo xam ni méngoowul ak li mu bëgg on ne fait pas le bonheur du peuple à sa place léegi li fi nekk mooy élection li ko gën a nekk farata mooy jàmm ci réew mi il faut ñu toog waxtaan dàq élection yi paa bi gis ci boppam ak ay nitam moom naka la mën a def ba génn ci jeu bi parce que paa bi mooy problème bi ah, waaw bu génne ñu mu xool nu muy génn ci jeu bi ñi ko seq ñëpp waxtaan xool ni ñuy defee un processus transparent moo xam ne ñëpp dañ ci d'accord ñu gis délai yi d'accord ci def élection yoo xam ne amul benn sikki sàkk ki gagné toog Cheikh man na laa yaakaar nga loolu dina yomb parce que bu ñu déggee ay kàddoom moom président nee na mën na waxtaan mais après 26 février lay nekk euh, bu ko defee ba ku nekk xam yow yaay kan booba waxtaan dina mën a am moom ci la gis foofu waxtaan euh, wuute ak li nga xam ni moom la Cheikh proposé yow lan nga gis bon bon man moom euh, il ne m'appartient pas de dire ndax dañu war a repousser ay élections wala duñ ko repousser côté boobu du ma ci joxe sama sama sama xalaat damay analyser froidement euh, li am contexte bu ñu nekk laa la la mën euh, jàpp te ak lu président wax ak ci processus bi fu mu toll xam naa ne waxu repousser élection Ablaye Wade tey même su ñëwoon mu bëgg ko wax moom mu jóge ci coobare boppam parce que constaté na dëkk bi am na benn niveau de violence bu koy taree dina am ñoo xam ne dañuy jàpp encore combine bëri xam nga tax parce que y a eu des toogoon nañ fi ñu ne euh, Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck proposé woon nañ fi def deal pour daal di repouse élection yi ba 2014 ba wax ji jibee ci biir presse bi Idrissa Seck génn ci ba mu set wicc mu ne moom musul musul wax loolu loolu déjà facteur de blocage la tey même su fekkee moom dafa bëggoon proposer parce que Wade dafay dañ koy yàgg tuumal ay deal ay euh, ay ay combinaison yu mu def yu bëri ba nga xam ne su waxoon tey sax mu daal ñëw mu ne euh, jàpp naa ne dëkk bi nekk na ci fitna boo xam ne nekk na ci tension boo xam ne nañu repousser élection yi yaakaaruma ne non seulement ñëpp dinañ ko gëm. yaakaar même rek. contexte bi nag dafa wuute. que dama dama nekk di analyse dama dama wax rek même même ça les les difficultés qu'il y a. Mhm. c' est à dire pour dire que calendrier républicain bi lii la woon mais nañ ko soppi parce que def nañ lii. Mhm. beneen bi nga wax bi mooy diisoo bi ñun euh, ñu ñu ngi diisoo depuis 2000 am na ñu yàgg toog di daal di mais toutes les tentatives de médiation. bu ñu fi am mooy ay depuis groupe ay euh, groupe des sept groupe de xaw dañoo tollu ci niveau boo xam ne kóolute amatul fenn entre la classe politique ak euh, position bi man dama yaakaar ne dañu nekk dans une impasse. dans une impasse euh, Cheikh may moom ma daaneel dans une impasse boo xam ne Abdoulaye Wade tey il a réussi la prouesse de se fermer toutes les portes imaginables te moom moo tëjal boppam bunt yi benn. par benn cest dire que même repousser élection te tey mu wax ko te mu teg ko ci foo xam ne ci ay anam yu leer la mu teg ko ci contexte bi teg ko ci lu lu bari su ko wax su ko proposé woon tey dina am ñoo xam ne dinañ ne ànduñu ci wala dina am ñoo xam ne ne ah góor gi wax waxeet lay defaat walla góor gi nii wala góor gi naam pour te dire à quel point le Sénégal est dans une situation difficile. D'accord. Moi je pense. je pense du ma du ma sama xam-xam bariwul dafa dafa néew. je pense que la seule solution possible pour Abdoulaye Wade lépp lu mu mun wax sénégalais yi pour mu am woy wu rafet mooy que même su fekkee dañu repousser ay élections que moom du bokk ci jongante yi. d'accord et loolu su loolu defe naa su ko waxoon. su ko waxoon mm-hmm. après tout est possible. toutes les options sont ouvertes. d'accord xam nga xam nga li ma mënul gëm mooy impasse maanaam yoon woo xam ni. amul fu mu jëm fale yoon wi yem loolu mënta nekk parce que loolu boo dee dëgg xamuñu fu ñu jëm pour man amul problème bu amul solution te li ngay wax ni bi muy am yépp contexte bu mel ni amul woon xam nga bi Idrissa Seck taxawee naan Ablaye Wade na dem ba 2014 boobu dara xewul ci réew mi jàmm fi amoon mais tey ab Ablaye wadd ak fi mu toll. Idrissa na waxu ko maanaam moo ko ab moo ko wax RFI ñëpp dégg ko moo ko wax benn communauté internationale bi maanaam États-Unis gis nga li mu xalaat ci Ablaye Wade ak élection yi France gis nga li mu xalaat ci Ablaye Wade ci élection yi nitu média nga bis bu ne nga xool chaîne internationale nga xool opinion internationale bi même ci réewu Afrique yi nga xool journaux yi ak rajo yi ak télé yépp li ñuy wax ci Ablaye Wade nga gis ko te loolu Ablaye Wade da koy dégg da koy gis da koy liir da koy jàng deuxièmement lii am ci Sénégal nga xam ni ñu toog ci ay quelques semaines lu mat ay juróom-benni bakkan rot fi bis bu ne ci Sénégal fitna am fi tey bu ma doon wax ci tubaab dama naan les condition psychologiques d'un dialogue sont réunies maanaam xam nga kiñ naan ñëwul waxtaan mu bañ c'est parce que dafa jàpp ni moo ëpp doole mais bis boo demee ba nga xam ni situation bi dem na ba ñëpp ragal nañu parce que fi ñu toll nii Ablaye Wade ragal na M23 ragal na peuple sénégalais ragal na en tout cas képp koo xam ni nitu xel nga ci réew mi tey am na looy tiit moo tax man la tey dafa jot sëkk xam nga affaire dafa ñoragul woon mais dama jàpp ni tey ñor na te gis nga gis nga barka solution amul ak impasse kooku mënuñu koo dégg xam nga lu tax parce que nag réew mi moom moo nekk ci kanamu ñëpp Ablaye Wade mii di wax bu réew mi jeexee dootul amati mu mel ni réew mu mu jiite ba pare dama nga xam benn affaire Ablaye Wade mu nangu woon discuter nangu dem li ngay wax yëpp problème yëpp jeex problème yëpp xam nga fan la nekk parce que nit ñi ils se disent que Ablaye Wade mi ngi fii bu demee élection dafay gañe bu gagné. day day toogaat ci nguur gi mais ça mais Ablaye Wade bu d'accord woon tey ni ñëw leen ñu discuter ñu xool man naka laay génne problème yépp am xam nga problème confiance bu amee c'est parce que contexte bi la mais tey bu Ablaye Wade taxawoon ni ñëw leen ñu waxtaan ñu xool à la limite sax naka laay terminer sama ay projet te parce que wax na ko ñëpp dégg ko man li ma intéressé mooy dafa am yoo xam dama ko sumb bëgg ko yeggale dem na sax boo xam ne man ñetti at rek laa soxla pour yeggale di ma sumb lépp après ma xool nu may defee élection ba kuy gagné Sénégal gagné xam nga loolu déjà pour man jàngin wi ci opposition waroon am mooy lii proposition la xam nga parce que xoo at réew day toll foo xam sauf que mhm. euh, dans un pays démocratique mhm. opposition bi mënul mënul mënul caler son son agenda sur l'agenda du président c'est-à-dire que président dafa am si ñu la fale munoo toog nga naan yow ngay xool lan moo la arrangé parce que. mag laa mën nga ma baal rek. parce que baal leen moom ma jël euh, Daniel parce que am na déclaration bu Macky Sall def te ñoom ñaar ñu ànd ci seen euh, euh, campagne ñu jël Daniel Diouf Daniel ñu ngi lay nuyu Daniel. Daniel yaa ngi ànd ak le candidat Macky Sall moom def na déclaration ci situation actuelle bi muy situation national bi lan la ci wax Macky waaw moom ba mu yëgee yëf si sax mu ngi ko commencé euh, ci meeting bi mu doon def tey si Ziguinchor waaye sànq bi ñu ñëwee dem léegi la ñu woowaat d'urgence ne nañ ko fekk ci hôtelam pour mu wax ci euh, mbirum euh, enfin événement yi xew tey Dakar ak ci campagne bi. événement yi lu gaaw la ci wax nee na événement yi lu rek lu muy regretté la te mu ngi koy qualifié. sont aveugles nee na attitude gouvernement bi c'est une attitude irresponsable responsabilité bi yëpp mu ngi koy teg ci kaw euh, Abdoulaye Wade nee na euh, plus ñuy jege élection yi euh, Abdoulaye Wade di multiplier provocation mel na ni daal bëggul élection am nee na sax moom li ko jaaxal lu tax nit ñi di def ñu leen di ñu leen di policier di leen topp di leen di sandi ay lacrymogène wala di leen tere manifestation alors que loi autorisé na leen ñu organiser ay manifestations sur l'ensemble du nee na nag continuer moom ci boppam di exiger retrait wu candidature bu Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade warul bokk ci compétition bi Wade est disqualifié sax nee na day préparer coup de force moo tax muy continuer di wéy di euh, bàyyi candidature am di ko gën a gën a wéyal daal nee na euh, mathématiquement Wade amul lu mu mën a def ba gagner élection yi nee yëpp li mu gis moom ci biir campagne bi gis na ne fu mu jaar Wade dañ koy rejeter nee na sax euh, wàdd bu fi ne violence la andi ñoom ils vont faire face lii daal la tox ci liw xewoon tey ci Dakar. Mhm. voilà Daniel euh, Diouf euh, jërëjëf dinañu dellu soit ak yow ñu fàttali ne ñu ngi ànd ak le candidat Macky Sall Cheikh da nga wax léegi ci lieu de culte bi ni nga xam ne noonu lañ ko noonu lañ ci sànnee lii di ay grenade lacrymogène danga wax ba di wax ni crime international la ndax ay daan mën na ci am. waaw daan yu mag mën na ci am ndaxte. lieu de culte euh, euh, charte yoon yoonu réew ak yoonu droit international daf ko protéger euh, parce que lieu de culte boo gisee droit international protéger ko mooy dañoo jàpp ni crise bu mën a am boo ci boolee diine rek mu jégg dayoo moo tax fi nit ñi nga xam ni fi lañ gëm fa la ñuy jaamoo yàlla kenn du ko jël di ko cibler ci guerre wala xeex mais bu loolu weesoo euh, dama am lu ma bëgg a wax Barka xam nga euh, démocratie ak bu mu mënti doon ci Afrique nga xam ni suñu réew yi juróom fukki at la ñuy soog a am on est obligé négocier ko négocier village yi parce que nag xam nga toog di wax ay démocratie di wax ay principe ba réew mi yàqu am na lu ko gën man gisuma benn pays Afrique boo xam ne nii démocratie sax na fa te tooguñu benn moment négocier ko même réew yi nga xam ne dem nañ tey ba tegu ci démocratie muy Ghana muy Cap-Vert yëpp dañu tem toog def loo xam ne ñun mësuñu ko def maanaam conférence nationale xam nga loolu dafay am réew day foo xam ni solution la ñuy wut mii nekk di wax ay principe yoo xam ne dafay yàq solution moo ko gën te amul benn réew Afrique boo xam ne dëgër na dëgër boo xam ne tey doon Europe ak yooyu problème du am xam nga lu tax parce que lii am tey par exemple lii ñu def nii mënu ko gis Europe am na manifestation yu gën a sommet altermondialiste yi manifestation yi mooy gën a violente yii fuuf mais zéro blessé zéro mort xam nga lu tax parce que même policiers yi dañ leen a tàggat ci démocratie homme politique yépp d'accord ci règle yi nga xam ni ñépp dañ ko xam kooku moom lu xew dañ naan nañ appliquer loi bi parce que dem na ba réew yooyu màcc na ci loolu ñun nag suñu réew yi nga xam ne juróom fukki la ñuy soog a am nga xam ni démocratie bi dañ koy négocier suñu policiers yi kenn formé leen formé wu leen ci ñu ñu respecté ak doomu aadama parce que lii ñu def nii c'est une violation grave des droits de l'homme parce que taxawal taxawal taxawal benn deuxièmement suñu om politique yi ñi ñu jiite jàpp nañ ni lu leen neex def même bu ñu jaaree ci élection ba ñëwit c'est pour toog def lu leen neex suñu justice nga xam ni ñoo waroon par exemple tey conseil constitutionnel bu taxawoon ni mu war a taxawee lii lépp du am suñu assemblée nationale nga waroon a xam ni lépp lu ëpp ñoom ñoo ko waroon a wàññi lu président nar a def lu jaaduwul jox leen loi ñu war koo kii ñoom ñépp li président wax la ñuy def donc boo nekkee ci réew mu mel noonu da ngay xam ni démocratie bi dañ koy wax rek waaye dafa des bu réew moomu nag tolloo ci yenn diggante yi da ngay li tubaab naan négocier le virage maanaam xool ba noo ciy génne mooy affaire yi mais boo fi taxawee tey di wax principe. sur le non non waxu principe dama bëgg dama bëgg ñu qu'on se Euh, man xo waxuma je ne suis pas un idéaliste damay euh, je travaille avec le principe de réalité euh, li nga wax yëpp dëgg la dëkk war na mun am négociation et cetera mais négociation ci lan lay lalu ci loo xam ne dafa mënul lalu rek ci ci ci wax nii situation bii ñu nekk nii c'est pas la première fois que Sénégal nekk ci ci tension mais chaque fois qu'il y eu des avancées dans une démocratie ku ŋànk ku ŋànk pouvoir bi kooku mooy tëddee njaaxanaay daal di lâcher du lest avancé majeure yu ñu am fii di ci démocratie Sénégal c'est les gens du pouvoir ñoom ñoo ñoom ñoo commencé par lâcher du lest mu njëkkee ci même soo xoolee le code consensuel de 92 Abdoul euh, euh, président de la république bu ñu ko ko joxee juge baa mooy jox ko te nga xam ko bu baax nga bind ci moom euh, livre dafa ne du ci changer virgule beneen beneen signe paix ak démocratie bu ñu fi gis bu la leçon en tout cas man bi ma jàpp mooy leçon bu gën a rëy euh, bu bu débloqué situation dëkk moom mooy Abdou Diouf bu mu woowee Abdoulaye wadd avant même proclamation résultat mu woo ko Mbarka euh, euh, dooguma la mais euh, boole ci Doudou Ndir. voilà président Sénat tey. voilà parce que président Sénat aussi. Mm. yaakaar naa ni lettre bi mu bind dina marqué mm. histoire politique bu Sénégal. parce que le fait que mu bind lettre. Mm. le préfet de Dakar xamal ko ni ko interdiction bi nga def. ci manifestation Ibrahima Ibrahima Fall teguloo ko fenn. autorisé ko mu def manifestation. loolu itam lu ñu war a souligner la nga boole ko ci. ci ci ci wàll boobu. si ñu démocratie daal di jël téléphone alors que ñun ñu ngi doon wax à l'époque dëkk bi dafay am guerre civile parce que alternance jamais mu am Sénégal jamais le parti socialiste daal di nangu euh, beneen euh, pouvoir daal di fi nekk surtout pouvoir PDS pouvoir euh, Abdoulaye Wade Abdoulaye président Diouf alors que rien li lui obligé formellement amoon na police amoon na armée amoon na gendarmerie nekk gu ñu woon ci niveau de violence boo xam ne am nañ ay des centaines de morts moom moo désamorcé une bombe sauver la démocratie sénégalaise mais loolu ku ku am ay principe démocratique wala nga daal di am euh, une culture politique boo xam ne sa dëkk jaral na la ko yow yaa koy def mais on a tout le contraire Abdoulaye Wade par tempérament wane na du quelqu'un qui lache du lest te ci 11 ans yi mu nekk au pouvoir il n'a jamais lâché du lest te fii ñu nekk nii euh, lii ñuy vivre nii dafa am c'est processus boo xam ne opposition bi aussi am na ci par de responsabilité parce que lan lañ njëkkee il faut bien analyser euh, lan moo ñu indi ci contexte bi. li li aboutissement ma ma terminer ci. sur le processus électoral. Uh-huh. Ablaye Wade dafa pose ay actes yoo xam ne lii moom mooy dernière partie euh, puzzle bi bu ci njëkk moom mooy dafa teste opposition bi seen détermination ci lan ci Sénat. am na ay faits yoo xam ne da yaakaar ne dafa isole fekk c'est pas des faits isolés Sénat bu muy teggi Moustapha Touré. daf ko teggi ci jalgati yoon dañ ko contraindre à la démission mu teggi ko il ne s'est rien passé membre Sénat yu fa nekkoon ñu démissionné wuñu mënoon nañ démissionné solidairement pour marquer le principe woon que ne mënoo fal kenn koo xam ne mandat wu mu jeexul nga génne ko fi mu daal di retourner daal di indi un ministre aussi peu consensuel que Ousmane Ngom ne ko pour mu rek élection yi opposition bi protesté deux fois trois fois nit ñi bàyyi mu daal di. mu daal di jàll. jëm ci fichier bi et cetera et cetera non non damay daaneel damay daaneel ñu jël ko. donc dama jàpp ne man lu Cheikh wax loolu ñëpp loolu lay nit ñi di ñaan mooy ñu daal di am benn euh, ay régulateur wala ñu am euh, solution boo xam ne dafay génnee dëkk bi ci ci guuta bi ñu nekk nii. mais yaakaaruma ne tempérament Abdoulaye Wade ak ñu ko seq ñu ko gën a jege. nekk na tempérament ñoo xam ne dañuy lâcher du les parce que dañuy yàgg jàpp ne opposition bu ñu bu ñu jàmmarloo loolu sax am naa ci am naa ci mm. baat boo xam ci moom lay tukkee mm. euh, mu muy luy confirmer li nga wax parce que moom moo ko waxoon doomu fóor fóor bu bu Togo bu Adema ah soo amee armée am pouvoir am pouvoir boo demee élection da koy gagné da nga koy gagné voilà donc loolu ku koy xelal keneen xam nga mm. ni armée bi jàppe nga ko sa sa sa moyen bopp léegi ci loolu la ñuy jëlee ki nga xam ni moom mooy euh, moom mooy euh, Ibrahima Fall bu mouvement taxaw tem euh, candidat ci euh, présidentielle yi ñu dëgmal monsieur Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw ñu ngi jégalu ci taaxirlu bi nag yàgg na. ñu ngi ci voilà merci beaucoup tey euh, dafa mel ni yow yaa invité woon askan wi ndax euh, sa mandataire nga yebaloon pour mu demander autorisation ci préfecture ci manifestation bi li ci xew yépp am na euh, gis nañu ko gis nañu li nga ci daj nan nga jàngate su tey bi fi ñu toll nii. Ah, jàngat bi ciy jëkk day moo di Abdoulaye Wade tamal nañu jalgati yoon tamal nañu itam ñàkk am warma ci askan wi tàmmal nañu féewale nit ñi ci kaw ay tariixa tàmmal nañu di def lu ko neex te fu ko neex la koy defee li am ba des nag moo di ñun war nañoo am fayda duñu bàyyi koo xam ni kii jox nañu ko lépp loo xam ni amaloon nañ ko ko te sax amaluñ ko woon dara fal nañu ko falaat ko def na lépp lu ko neex jeexal ay mandaam di léegi dafay toog mu neex ñu mu naqariñu jël ñi nga xam ne ñi ñooy takk dar yi ak soldaar si da di leen daral ci nit ñi ñun ci suñu manifestation bareel la ñuy sànni am na ñoo xam ne ñu nga hôpital waxuñu loolu mu dem ci Zawiya El Hadj def fa la mu fa def man daal dama yaakaar ni daf ñoo yab ndax bu ñu yabul woon kon lii du ko def waaye nag a ah, am naa yaakaar ci ni nag taxaw jot na de ñu de taxaw temm la ñu def li nga xam ni yoon may nañu ko dinañu ko def te képp koo xam ni kii ñëw nga bëgguñu koo xañ dinañ jàmmaarloog yow. waaw monsieur Fall ni ma ko laajee léegi njiitu fekkee ma ci boole mu Youssou Ndour moom ci wàllu euh, maanaam ëllëgu xeex bi. Euh, fan nga ci toll ndax mel na ni joxe waat nga rendez-vous ëllëg ci ci gaaw bi euh, ca place de l'indépendance. waaw dama ñaan ci kaw yoon man a def manifestation ajjuma ak gaaw. préfet bi yëgal naa ko ko lu yàgg laata ñoo def manifestation bii tey mhm. mu bañal ma ko bëgg dox jàmm ak wax jàmm ak def jàmm tax ma bind président commission électorale nationale autonome Sénat monsieur Doudou Ndir yëgal ko li nga xam ne lii moo ma boole ak préfet moom ci boppam mu seet yoon bi mu seete yoon xam ni li préfet du yoon mu bind ko lettre ni ko amuloo benn sañ-sañ aaye Ibrahima Fall mu def manifestation ndax lépp lu mu def ci yoon la ko teg waaye loolu teewul président Abdoulaye Wade moom moo jox instruction ministre intérieur pour ñu sànniñu ay grenade lacrymogène xoqatal ñu dóor ñu sànni ay bal ba am na ñoo xam ne ñii ba tey ñu nga hôpital tey am na ñoo xam ne ñii ñu ngi ci biir kaso ñu tëj leen loolu doy leen ñu dem ci Xavier El Hadji li am ba des daal mooy suba bu neexee yàlla dinañ dellu place de l'indépendance ni ñu ko defee woon tey dinañ fa delluwaat incha allah à 15 heures. waaw euh, monsieur Fall ndax li nga wax ni def nañu la ko te président Sénat euh, jox la autorisation sàkk ko ci préfet bi ay euh, ñoom ñu jalgati loolu ndax am na foo ko mën a clamé. fi ma koy clamé rek mooy taxaw ñu dóor ma waaye dinaa taxaw temm de. waaw lépp li nga xam ni yoon may na ma ko dinaa ci taxaw. waaw kon jërëjëf Ibrahima Fall ñu ngi lay. gërëm man dong waaw jërëjëf. jërëjëf mu nekkoon Ibrahima Fall candidat ci présidentielle yi ñu dégmal 2012 la bokk euh, moom nag moom moo oote woon tey euh, ca place de l'indépendance dégg ngeen ko ajjuma ak euh, gaaw ci la amoon lii di autorisation wax nañ ko léegi dañuy dellu siwaat ci plateau bi ma dellu siwaat ak monsieur Seck Cheikh man ñor ñor na ma trop ci consensus bi nga xalaat ak gis-gis bi ci euh, bark am ndax loolu itam ponk la bu am solo bu ñu tollee fii euh, lan nga koy dollee ci argumentaire lu koy gën a mën a wéral euh, ni toll nañ fa war na am. dëgg la loolu am lu am solo la Pape parce que loolu mooy avenir bi waaye lii Ibrahima Fall wax bëggoon naa cee dolli rek benn moo bu ndaw parce que man damaa jàpp ne Ibrahima Fall dafa piéger régime bi maanaam. daf leen a euh, gasal kàmb ñu daanu ci xam nga Ibrahima li mu def nii jëfinu jàngalekatu yoon la parce que dañoo ñëw ñu ni euh, ministre de l'intérieur dafa bind benn arrêté ni place de l'indépendance kenn lu fa manifesté te xam nga arrêté ci droit loi moo nekk ci kawam parce que traité international ñoo nekk ci kaw constitution topp ci loi topp ci bi assemblée nationale di wote décret président topp ci arrêté ministre topp ci ki nga xam ne nag jàngalekat droit la daal ni comme arrêté moo tere lii maa ngi dem foo xam ne nii loi moo koy nangu parce que lu arrêté tere loi sañ nga koo nangu mu dem ñaan autorisation mu dem def déclaration parce que campagne électorale article L61 def ni bu campagne électorale jotee candidat bu ne foo xalaat ci Sénégal ni mën nga faa taxaw pour woot nit ñi ci li pour ñu topp la wateel yow sañ nga faa dem lenn rek lan lay laaj mooy benn fan maanaam ñaar fukki waxtu ñeent balaa loolu nga yëgal nguur gi ni foofu ngay dem Ibrahima Fall dem def loolu bi mu defee loolu préfet bi daa di dàq yoon ni ko sañoo faa dem te amu ci sañ-sañ parce que article L61 nga xam ni code électoral xam nga loi la kooku moo ëpp doole fuuf arrêté bi ministre bi jël Ibrahima Fall nu mu def bindu du Ndour président Sénat ni ko man kat yoon laa topp waaye préfet nee na lii sañu ma ko Doudou Ndour tontu ko tontu ko bind préfet ne ko lii nga def sañoo ko parce que yoon mayu la ko xam nga Ibrahima Fall ku jara suivre la ci champ politique bi man dama xam ni ñépp ñi nga xam ni ñi ngi ci àdduna bi muy mbootaayu xeet yi muy cour pénal international muy États-Unis muy France ñëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi bàyyi bët ci Sénégal di ci xalaat di ci wax bari na luñ koy laaj xalaatam parce que dafa dem ba topp ci ki nga xam ne nii mooy secrétaire général des Nations Unies ni ko ràcc te lii mu def nii acte la boo xam ne daf ko posé pour défier nguur gi mais teg ko ci yoon ak loi <laughs> te suba suba yoon may na ko mu delluwaat fa léegi nag nguur gi bu fekkee ne Ablaye Wade bàyyi na Ousmane Ngom réeral ko ba mu continuer topp lii muy def nii fi mu toll nii violé na loi bi deuxièmement ñaanuma ko yàlla mais bu ci dee amee tey cour pénal international sax mën na ci am yoon. jërëjëf euh, Cheikh dinaa dellu si euh, ci yow laay ñëw barka mais nga baal ma ma jël Cheikh Tidiane Gadio euh, bu luy jot jot na moom candidat la ci élection présidentielle yi monsieur Gadio ñu ngi lay nuyu. waaw mu mel ni nekkuloo ci ci dëkk bi yaa ngi ci campagne bi ci àll bi waaye li fi xew ump la euh, jot nga xibaar yi ban jàngat nga ci mën a def. waaw euh, maa ngi naqarlu bu baax euh, événement yu doy waar yi première réaction bi ma amoon sa ma déggee suma frère suma xarit Cheikh Bamba Dièye dañ ko arrêté woon sama réaction c'était de dire que ne mbir mi. Sénégal am na fu mu toll tey fu doy waar mhm. euh, buñ ñu demee ba candidat à l' élection présidentielle nekk réewam ñuy woote démocratie fii ci Sénégal mu am droit campagne fu ko neex ci réewam Abdoulaye Wade jàpp ne moom fu mu nekk ce n' pas le président du Sénégal mais buuru Sénégal c' est le roi du Sénégal euh, lu ko neex def loi bu amul roi bu amul sax constitution amul c'est-à-dire monarchie absolue lu ko neex def ci réew mi loolu waral ñu am situation bi nga xam ne loi constitutionnelle du muy autorisé doomu Sénégal bi pendant la campagne euh, ay arrêté ministériel bu Ousmane Ngom bëgg ko xañ sénégalais yi xam nga ne loolu duñ ko nangu ci biir loolu ñun ay la def na ne suñu tour la demain euh, mu coalition Gadio président ak euh, MPCL ñu ñoo demandé demain autorisation manifester à la place de l'indépendance à quinze heures gars yi notifié wuñ nañu ne duñ ko duñ ko autorisé ñun tamit saisir nañu Sénat bi ku ne ko lu ci xalaatam ak lan ma ci arbitrage am li mooy demee incha allah dinañ nekk place de l' indépendance à 15 heures Abdoulaye Wade il xam ne jëndul benn territoire Sénégal portion Séné territoire Sénégal bu mu def portion privée boo xam ne moom ak famille am ak clan ñoo ko moom place de l' indépendance askan yëpp ko moom askan yëpp ko. te honnêtement boo gisee événement yi da ngay ruus parce que Sénégal wees woon nañu fii euh, da ngay ruus fii ci ki ko def c'est-à-dire fi ko nit ñi fooge woon ak fi ñu ko doon xaaree mbett bu rëy la def askan wi. li ma jàpp nag mooy bu xamoon détermination bi mu àndal que détermination leaderu opposition bi ak leader yi nga xam ne M23 la bokk bu xamoon ne suñu détermination moo ëpp bësam fukki yoon dina beer ngànnaayam yi xam ne li war ci moom mooy à at yi ko yàlla may mu respecté constitution Sénégal génn ci jàmm ak salaam ne dafa mel na loolu moom weesu na ko. jàpp na ne dafay jàmm ak askan wi te ne dara tuuru Sénégal mel ne dootul problème am te ko ne di dal ci kaw euh, doomu Sénégal dafa mel ne du problème am keroog man manifestation barki démb bi ba ñu sànnee ay gaz dafa ay gaz suffocant la ñu sànni parce que tuuti ma perdre connaissance dama doon jéem a nooyi avant jot as naa jot ay lacrymogène sa bët la doon gêné tuuti sa respiration mais bi seetlu ne dafa mel na day dog ni ngay noyyee dafa mel ne da lay suffoqué alors bu dee Abdoulaye Wade wut na ngànnaay yooyu yëpp comme ni ma ko yàgg waxee rek dafa jóg pour jàmbaarloog askanu Sénégal pas M23 mais peuple sénégalais et ba dem na ba tey lu gàcce bi mu teg Sénégal ak attaque bi gars yi def ci mosquée bi pour portier yi ñëpp gis image am ràññee ko xàmmee ko muy nag benn avertissement bu doy waar boo xam ne jar na def. à toute personne boo xam ne affaire Abdoulaye Wade ak son ministre de l' intérieur dañ ciy xër a loo xam ne ëllëg yow dina la dina la lor parce que ñooñ ñëpp seen dossier dina dem cour pénal international incha allah ñun yàgg nañ ko wax sénégalais yi dossier boobu ubbi nañ ko ñu ngi koy documenté benn événement bi ñu rëcc luy xew Sénégal bés bu jotee dinañ ko def ni ko war a defee képp ku war a rendre compte de crime de sang maanaam bakkan yu rot nga xam ne am nga ci boo yeboo nga préparé sa valise parce que daa dem cour pénal international dinañ la juger dernier point bi ma wax nag mooy sama déclaration sànq ci seen rajo yéen waa waa TFM seen rajo bi RFM nee naa man di jàpp naa à part mu proposé conseil national de transition ci de coup de force bi Abdoulaye Wade di préparé peuple sénégalais tey yokk naa ci te seet naa bu baax li may wax pese samay mots à partir du premier avril bu dee yàlla yóbbu nañu foofu ci jàmm ak salaam Abdoulaye Wade des ñëw dal ci askan wi euh, violence fu nekk ñëw taxaw ne moom mooy président Sénégal man jàpp naa ne du sama président du ma ko reconnaître comme président et je demanderai à tous mes camarades de l'opposition à tous les Sénégalais citoyens yu am jom gëm seen bopp mun défendre seen askan de fer comme moi mmh voilà euh, Cheikh Tidiane Gadio jërëjëf déggi nañu lii mu wax wax na lu jëm ci xalaatam bi mu déggee ni jàpp nañu Cheikh Bamba Dièye invité na itam askan wi rawatina ay militants ëllëg à 15 heures ci place de l'indépendance ndax nee na tuuram la euh, kon mu nekk ñaari événement yu war a am ca place de l'indépendance Ibrahima Fall ak moom Cheikh Tidiane Gadio ci noonu barka ba bala may ñëw ci ay images yu euh, ñu régie bi di proposé wax nga ni ni nga xamee Abdoulaye Wade ak entourage ñu matt di di bàyyi waat maanaam ñuy lâcher du lest duñ ko def euh, kon gis nga ni li am tey war na amaat suba bu fekkente ni candidat yi euh, dëgër nañu ci li ñu war a def suba. waaw li ma lay wax dama ko teg fu leer parce que euh, il faut nga xam culture pouvoir bu nekk dafa am ay nit ñu ko ŋànk dafay am dañu am parcours politique dafa am ñoo xam ne li ñuy wax culture politique culture politique bu PDS ñoom li ñu jàpp mooy que pouvoir dañ koy ñafe te que ñoom dañ kaa ñafe te ku ko jiite ki daf ko ñafe pendant vingt six ans dañ leen dóor liif dañ leen matraqué ñu ñu fan la commencé d' abord mooy Abdoulaye Wade am groupe parlementaire en 78 Senghor daal di ñëw def transhumance ñu jàmb ko euh, c' est un parti boo xam ne ils ont reçu beaucoup de loolu daf leen daf leen formaté muy Ablaye Wade ak ñu des cette culture de résistance cette culture de de 26 ans lañ def pouvoir loolu moom moo leen piégé loolu moo leen piégé parce que xamuñu ne jamono soppeeku na jamono changé na que nit ñi euh, ñoom euh, c'est pas parce que def nañ 26 ans c'est pas parce que door nañ leen ay liif nooyi nañ ay gaz yu metti que c'est pas parce que arrêté nañ leen ay euh, guddi yóbbu leen tëj leen rëbës que ñu ku képp ku keneen ku bëgg a jël nguur gi il faut nga jaar fu ñu jaar loolu mooy pour man la grand malentendu ki fekk que Abdoulaye Wade suy wax souvent lan ngay dégg ci discours am opposition bi ay tapette lañ opposition bi mënuñoo génne un million de personnes dans la rue man Abdoulaye Wade def naa ko or jamono dafa dafa dafa changé moo lay ne jamono dafa changé opposition bi xëy na mënuñu mobiliser un million de personnes. dans la rue koy def sax opposition bi. xëy na xëy na xëy na mënuñu mobiliser génne guñ un million de personnes la rue mais. Euh, fan la juumee ci man ak stratégie am ñan ñoo nekk à son pouvoir mooy ñu koy ñu koy nànkal naan ko ñii duñu dara ñi représentatif ñu est-ce que un président de la république bu conscient wala ay entourage am ñu conscient mën nga jàpp d'abord que yow sa biir parti nga xool sa biir parti en dix ans nga am sañe bu toll ni nga am ñaari premier ministre yu bàyyeekoo ci sa parti nga nga nga néewal loolu nga ne loolu du dara muy Macky Sall muy Idrissa Seck nga ne ñooñu duñu dara nga am ministre des affaires étrangères boo xam ne nekk na yow pendant neuf ans nga euh, mu bàyyi la nga ne amul kenn loolu loolu du dara nga am euh, des leaders de la société civile lu mel ni Alioune Tine diriger ak son réseau ak ni ñu ko xamee mu dem ba radicaliser wu nga ne loolu du dara nga am des gens comme ay Amadou moxtar Mbow ancien DG euh, lu mel ni UNESCO ñooñu def ay assises nationales nga am ay Mamadou Touré nga am ay Cheikh Hamidou kan ñu nekk les derniers gardiens du temple yu ñu am fii si dëkk bi nga ne loolu yëpp du dara wala nga xokkatal leen c'est-à-dire que nga am quelqu'un euh, qui a une réputation internationale comme Youssou Ndour ñëpp xam ko xam ay réseau am ku mu doon nga ne tout ça c'est du c'est du vent mais quelqu'un qui qui qui analyse comme ça da lay wóor na ni kooku. Eh, bul fàtte le aussi nga am. parti socialiste boo xam ne nekk na pendant 40 ans avec des gens qui sont au pouvoir mun nañ mun nañ multiplier mhm. exemple yi à l'envi est-ce que Abdoulaye Wade mën na raisonnablement ne loolu yëpp tout cette loolu yëpp du dara nga toll ci nga loo xam ne c'est pas moins nga am presse boo xam ne dafa xarañ presse boo xam ne ils sont outillés ak ñu nekk ci contexte boo xam ne village planétaire lañ image bu ndaw. ëpp na ampleur loo xam ne c'est en temps réel loolu yëpp mu ne woon ko doole mu ne moom kese moom kese lépp lu mu def def ci génn et c'est vrai loolu moo ko piégé parce que pendant et onze ans plan yu mu mus a déroulé yëpp day su mattee du bàyyi mais loolu nguur daf lay mbas te nguur daf lay dalay trompé quelqu'un comme Moubarak quelqu'un comme Ben Ali euh, ba balaa ñuy daanu mënuñu woon imaginer quelqu'un comme Kadhafi am nañ armée am nañ service de renseignement nekk ci ay pouvoir pendant plus de trente ans ñoom ñoo gën a yàgg lay Wade au pouvoir mais parce que ils n'ont pas su faire la bonne lecture au moment opportun gis nga nguur gi da leen di nguur dafay mbasaate nguur dafa lay piéger alalu jinne la et dafa mel ni lu rax seytaane parce que soo tollee ci war a ubbi say gët nga jàkkaarloog askan bi nga war a jàkkaarlool mun nañ la envoyer tous les signaux mais signaux yooyu doo ko gis man dama ragal ne Ablaye Wade dafa nekk ci ci boobu. que gisul parce que régie bi dañu wax ni ma ñu dese ci ay minutes bariwul donc dañuy résumer plateau bi après ñu bàyyi image yi nga xam ni jëlee nañ ko euh, ci dëkk bi ñu tegal ko suñu mbokku téléspectateurs yi euh, lan mooy nekk euh, sa xalaat ci ci ci ci jeexitalu. dafa am ñaari Ablaye Wade dafa am boo xam ne nii politicien la xam nga politique mooy lan. mooy wax loo xam ne nii dafay danga koy wax pour bëtu nit ñi ak opinion bi am ab laat boo xam ne politique la xam nga yaa ngi wax naan euh, gaajoo ngi dem Ablaye Wade ni du dara loolu wax na ko pour bañ a décourager ñu njëkk PDS waaye Ablaye Wade bis bu yàlla sàkk muy wax ak ay nit pour ñu wax ak gaajo de la même façon ni sa Seck makki sàll demee mu ne duñ dara bis bu yàlla sàkk ay pap sàmb mu bag yu ma xamul wax ak góor gi dem ci ñoom pour jéem a wax ak ñoom gis nga opposition bi nga wax waa PS lu leen Abdoulaye Wade attaqué noonu lay doxe digganteem digganteem ak ñoom noonu lay defee lépp pour jël Aminata Mbengue Ndiaye noonu lay defe yépp pour jël Khalifa Sall bu ñu jaawale lay wadd projet constitution bi mu defoon changé pour ñëw indi affaire vingt cinq pour cent bi ñu demee ba peuple bi jóg lu mu def loolu daf ko retiré génn ci ba set wecc ñetti yoon bi crise bi commencé ba léegi nee na manifestation du am dem ba ci biir mu génn ci ñaari yoon place de l'obélisque def na ko ba tàyyi mu ni manifestation du am dem ba veille bi mu génn ci xam am nga Abdoulaye Wade dama bëgg ngeen xam benn affaire lu tuuti li ma xam ci moom xam nga lan la ma jàngal du nit kuy suusi du nit kuy xaru politique déglu ma wax la stratégie di bord du gouffre la gëm maanaam booy xuloog moom boo ko waxee da lay saaga boo ko saagaa da lay dóor mais xam nga boor di guufu mooy lan mooy dama lay tiital mais bu ma demee ba xam ne yow bu ma ànd ak yow ba dugg nar a dugg ci guufur bi damay taxaw parce que xaruwul Ablaye du xaru il faut nit ñi xam loolu te Ablaye Wade euh, mën nañ ko waxal lépp mais am na lu mu gëm maanaam dafay nit ku rëy koo xam ne dafa bëgg bàyyi trace ci histoire xam nga lan moo tax mu am obsession ci Senghor parce que way wi Senghor am la ñee barka li ma gëm man te li ma wax dama koo teg ci li ma xam ci moom mooy Ablaye li muy wax ci kaw ci politique moo demee noonu politique même opposition bi ak li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ci suuf parce que réew du li ñuy wax ci kaw moo ko yor déedéet boo toppee ci li ñuy wax ci kaw rek xamoo réew xamoo ci réew mi daal. d'accord li ñuy lijjanti ci réew lu am solo kenn du ko wax ci kaw ci biirum néeg lañ koy wax te kenn du ko wax bëccëg guddi bu suuf seddee lañ koy wax. d'accord loolu lépp li ma ci mën a conclure mooy. Mhm. dama bëgg sénégalais yi jàpp ni Abdoulaye du doful xaruwul te ñi nga xam ne nii ñoo ŋànk réew mi muy kilifa diine yi parce que man dama jàpp ni réew day toll foo xam ne nii ñi nga xam ne nii am nañ fa baat dañoo war a jóg. ñi nga xam ne aussi ci wàllu société civile am na ñu ñu représenté ci réew mi bu ñu taxawee ak mbat bu war a am parce que Abdoulaye aussi moomul nit ñi moomul réew mi même bu fekkoon dafa war a def lu ko neex. mais ñun 14 million de Sénégalais bu ñu toogee di ko bàyyi bi def ko ça veut dire que lu ko neex na ko def réew nag dafa toll foo xam ne nii xam nga maam Abdou Aziz Dabakh gis nga bu affaire mosaan toll fii da daan jóg i tape du point sur la table réew dafay toll foo xam ne nii il faut yenn régulateurs yi jóg mais tey man li ma gëm mooy situation Sénégal toll na foo xam ni Ablaye Wade bu ñu ko offriree un cadre de dialogue boo xam ne c'est crédible mu négocier dama voilà Cheikh merci beaucoup. Euh, barka sa sa kaddu parce que xam naa ni ñàkkul nga def benn conclusion parce que dama bëgg a recevoir Khalifa Diakhaté waaw euh, euh, j'aurais bien aimé ma partager optimisme euh, Cheikh Yérim Seck bi mais li ci kanam rawul bët ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee ñu daal di xool ndax loolu principe de réalité bi dina rattraper président Abdoulaye Wade pour euh, ubbi ay gëtam xool nu situation bi réew mi toll e mu jël euh, la décision qui s'impose. waaw mais Bakk dama bëgg a yokk benn affaire rek. te am na lu ma xam tuuti du optimisme béya maanaam ne mel ni ganeen naan damay gëm loo xam ni dama ni la waxuma ni yëf yi dina jaar ci yoon de man maa gën a ñaaw njort moo tax ma koy bind di ko wax di bëgg nit ñi wax mais dama ni la. am na noo xam ni ñi ngànk réew mi bu ñu ko taxawee tey solution mën na am bu ñu ko taxawul nag lu am rek ñoo xam ne ñun ñëpp ñoo ko mérité. merci Cheikh ma ma recevoir xalifa euh, xam naa pour quelques secondes lay doon euh, barka barka ba lan moo nekk sa sa sa sa sa kàddu yaa ngi ma koy wax léegi. waaw man lu mu wax rek mooy euh, lu ci kanam rawuli gët. Mhm. jàpp naa man que Abdoulaye du koo xam ne day day gaaw a reculer. su jàppee benn affaire du bàyyi. d'accord est-ce que est-ce que lecture bu correcte. Mhm. bi nga xam ne moom moo imposé wu ci situation dëkk bi. Mhm. mun na ko tirer. man euh, bugguma gaaw ci ay analyse ñoo ngi toog di xaar di xool euh, nan la nar merci Barka xalifa sa sa commentaire juste rek parce que mel na ni intéressé na la pour nga revenir ci absolument donc très rapidement li ñu mën a tënk mooy euh, image bi ñu gis tey dafay image boo xamante ne ni image bu terrible la image la boo xamante ne nii euh, il faut mu am euh, conséquence immédiate ndax euh, li nga xamante ni moom la Cheikh mu wax ñëpp dégg nañ ko xam nañu li xew ci yeneen yi réew yi xam nañu li xew fii nga xamante ne moom mooy ci réewum Sénégal un lieu de culte ab alkaati taxaw tëmbal fa ab lacrymogène tey jii yaakaar naa ni bu fekkonte ne ni doomu aadama daw na làqu ji ambassade bu France wala mu daw làqu ji ambassade bu Amérique kenn du fa tëmbal lacrymogène ñu nekk ci réew mu mel ni Sénégal doomu aadama yi am ñu nekk ci biir di jaamu yàlla am ñoo xamante ne dañu euh, daw làqu ji si néegab yàlla ñu tëmbal fa ab lacrymogène li gën a jekk te rafet te warul am benn xaar mooy maître Ousmane Ngom tey jii dafa war a démissionner loolu parce que moom mooy kilifa gi nga xamante ne ni moom moo teg alkaati yi si mbedd mi euh, li may wax ni c'est des faits moom moo euh, violé article L 61 bu code électoral daal di dummooyu li nga xamante ni moom mooy dànkaafu bu euh, Sénat. kon mbir mi féete na boor tey jii maître Ousmane Ngom image bi ñu gis alkaati bi jël lacrymogène bi sànni ko ci biir euh, jàkka ji benn sanction rek la war a am dafa war a démissionner. voilà merci beaucoup Khalifa euh, kon mbokk yi mu nekkoon édition spéciale bu leen télévision Futurs média indiloon ci événement tey yi ñu leen di fàttali ne Zawiya Seydi Hadji Malick Sy Serigne Baye Sy Mansour demoon na fa sàkku na ci taalibe yi ñu joxe fa daje. Euh, dimanche à 10h euh, ci suba incha allah euh, kon ngeen dégg ko dimanche ci 10h Serigne Mbaye Sy Mansour sàkku na ko ci taalibe yi fas def ak ñoom déclaration lan lay doon xamuñu ko kon fii la ñuy yem ak yéen mbokk yi <clears throat> ci édition spéciale bu leen télévision Futur Média indiloon ci événement bu spécial ndax li ci xew tey jërë ngeen jëf. ñu toog di xadara ñu jóge wuloo kenn dara dara ñu toog fii di préparé suñu xadara ñun demu ni ci bind ñu fekk ñu fii di ñu door ay bal yàlla gis na ko ñun yàlla muy gis na ko Cheikh Anta Tidiane gis na ko si yaay mel Serigne Babacar Abdoulaye Wade yàlla ko suñu xadara ci barke yonent bi bon ma ne fii la ñu toog di wérde julli nañu ba pare def suñu laazim toog di wérde jàpp suñu ñàmbur ñuy dàq xale yi xale dugg ci biir jàkka ji ñu sañu làkk ñu seen mu ngi nii bi mooy sixième sixième bombe bi dugg ci biir bi sama wet la benn soit bi may si je respecte même pas je ne même pas respecté waaw Abdoulaye Wade ñoom duñ ko wax dara bokk ñu seqoñu dara mais li nit seqoñu dara alkaat bi sànni kii laa ba fekk ay nit ci biir jàkk ji sànni bomb yi ci jaaduwul tëj bi ci yëpp ci biir lañ ko on était assis tout bonnement ici soudé soudé entendu des cris et tout ça, ils nous ont envoyé des bombes lacrymogènes. On est toujours en train de faire le, notre lazim pour préparer le Hadra. C'est fini. Et voilà, c'est ce qu'ils nous ont fait. Voilà. Ils ont jeté des grenades lacrymogènes. Des grenades Vous avez vu nos yeux non Voilà, c'est ça. À l'intérieur de la mosquée. Oui. À l'intérieur de, la mosquée. en faites-vous En fait, si on reproche, on reproche le président ou bien le ministre. C'est l'ordre qu'il a donné. Mais ça, ce sont simplement des policiers qui ont décidé ça. Ce sont, ce sont les, ce sont, ce sont les supérieurs. C'est des ordres-là. Ce sont les supérieurs qui ont mis des bombes lacrymogènes à l'intérieur de la Zoya, en plein Khatara. Ousmane Gow bu ko wane mu dem fa te bu fa demee naan tiijaan la du tiijaan dafay bu boo tiijaan mais du tiijaan dans les marches rester chez eux yàlla indi jàmm ci dëkk bi ngeen toog comme que cour constitutionnel wax na li muy wax nañu dem voté mu jàmm waaye ñun ñu ñëw di jaamu yàlla di ñaan jàmm ci réew mi moom Ablaye Wade di yebale fii ñu dinu dóor ay bomb Ablaye yal na ko yàlla doo bomb ci barke Muhammad sallallahu alayhi traversé il y avait des manifestations xale yu daw ñoom ñu arrivé seen grenade tiré heureusement sa sama sama moo nekkoon si gannaaw nde moom ci moom la ne woon dal mu fóorale ma noonu fi demee parce que moo koy mett na loolu mett na heureusement heureusement heureusement ñëw nañ que j'ai pris des soins mais daal xam naa ne moom lii moom yàlla mënu ko seetaan contradiction absolue et totale boo waxee rek du mujj fenn xale yi ñu ñëw julli si waaw ah, mooy bàyyi ma wax rek ma ñun dañ ñëw di julli si kon laa jóg di julli xale yu dugg di julli fii la ñu taxaw santé police yi tooñ baaxul nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla ragal leen yàlla wala du yoonu xadara la leen fekk mënu ñu ñëw police yi topp leen xale yi du ñuy xadara fii xale yee fi ëpp xale yee ëpp fii man fi jaaw laa waaye dama fi jaaw mais xale yee fi ëpp yaa ngi noonu الثاني الثاني coiffés nos cadres du Juma dans la rue. Il y a les femmes et les hommes. Voilà, il y a des Pourquoi Parce que euh, dans la mosquée, on ne peut pas rentrer là-bas. Ils ont lancé des têtes de au moins 9 têtes Il y a des filles qui sont tombées sur la Ce n'est pas normal. Et nous sommes tous sortis dehors pour faire notre travail. C'est inédit, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. ci wolof nga dëngal ñu ko da nga ñëw di wax ak policiers yi. dama ne bu ñu delluwul ginnaaw xale yi ak kenn du fi jógee si tali moo tax ay jël ñoom dañ toog xadaran juma gars yi sànni ñu bi bi ñoo nekk lu leer ginnaaw bi mu tojee Ndakaaru fas yéene dem Casamance ñu ne ko Serigne Modou ban dëkk nga jëm mu ni maa ngi jëm Ziguinchor ñu ne ko koo fay fekki mu ni sama xarit sama soppe sama doomu ndey ministre d' état huitième édition drapeau Abdoulaye Baldé ministre d' état ñun ñan ñoo koy bëre diggante xale boobu nga xam ne nii mooy Abdou Diouf nga xam ne saa bu jugee tamay waalo yu dar waaye kan lay dajeel xale boobu nga xam ne mooy brise bi moo jugee nag ci université bu ma ba di université Fass ñun ko Serigne Modou Niang kan nga dara jëlal boobu mu ne ah sama doomu day di lépp lu ko tuddee muy Ablaye Baldé ministre d'État mu jëlaat ko nag jagleel ko son excellence président de la République Abdoulaye Wade kan la defee bis boobu yaakaar naa ne képp koo xam da nga fa ñëw doo fay dara de waaye en direct la TFM de lépp luy aada ak cosaan fas yéene naa ko indi ci boobu bis ndax nag bis bi moo toll noonu ci man te damaa toj réew mi yëngal réew mi bañ ma ne yow yaay promoteur numéro moo tax ma fas yéene dem Casamance fekki sama doomu ndey fekki sama xarit fekki sama soppe ministre d'État Abdoulaye Wade Sportage bu yànj bi ah mbokk yi mën ngeen ko gagné mën ngeen a gagné it ay enveloppe cash yoo xam ni yegg na ba 4 millions de francs CFA ak yeneen i cadeau yu dul jeex tontul gaaw ci laaj fan la maison des esclaves A Gorée B Diourbel yónneel gaaw par SMS A wala B ci 2 68 68 wala nga woote ci 88 628 08 18 pour nga mën a gagné chaque semaine ay enveloppe bu xaalis ba noppi daal di gagné li nga xam ne moom moo di écran LCD wala nga gagné 4x4 a Sportage bu yànj bi ca tirage final bi waaye yéen 4 x bi rafet na de tirage au sort bi am chaque semaine ci kanamu huissier de justice jeu agréé par la LONASE